aja loolu combat sok la diggante cionou gal ak Robert ndjay numéro 2 Thionou Gaal ngembo ngembul ruus Robert Ndiaye ndjay mo fété ma mané combat bi waaw waaw nga fas lay don combat bi combat arène la won waaye mujj mujj dem coon takk na ko takk na ko de ee eh, lu waay doon jaay dina lamb tey dina leer ñu déglu combat bi aca i leya nuun ee CFA Diakhao de nda combat soog a jega Robert Ndiaye numéro 2 Thione Kane o Robert daan na ko Robert daan na ko de oho aca i leya nuun ee Pape Ngane Sosokh mba Djingue Sarr a